yeah yeah yo Assalamualaikum Aduna. Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi Cheikh Fall nak. ñu bari xam ma ci langar nak. Ñi ngi préparé nak koor ngeel gi ak tiama. Mangi bok ak sama nijaay ak sama papa ak sama mak. waaw ñu bëgg nak ngeen xaar ñu ci Inshallah. yow ki la bëgg bëgg la. ko mënti defit du ko gis ndax mbëggeel nga lay xool ki la bañ ba bañ la te bañantu la loo ko mënti defal du ko gis ndax mañal nga lay xool yee jaamu sama wala